الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون جيتال كسلوم نيونا محمد المنتقى من الشيخ محمد البشير di ci teg mbokkam bu baax ma Euh, tarixa Borom Saam ñu sëriñ Cheikh Ismaïl di leen ñaanal yàlla mu yàggal leen lool te may leen ba mboolem bi nga xam ne yéene nañ koo liggéeyal seen maam yi tedd ya sunu borom kàttan nañ leen ba nu yeggale ko nu kawe njort gannaaw ba nag di nuyu mboolem yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci tànt bi di nuyu it sëriñ Cheikh tedd mi nga xam ne moo amee jataayu sëriñ Bara Kuréje ibnu maam borom euh, di ko ñaanal yàlla moom mu yàggal ko di sant bu baax it kilifa yi nga xam ne moom la fi fekk muy sëriñ Saalix Mbàkke ñu di ko miine ci sëriñ Saalix Ndexlaas mu nekk jëmm ju baax joo xam ne ñii muy woote nga xam ne njariñ la loo xam ne ci ak mbokk muy tànn ci kër yi nga xam ne mooy buntu këri borom saam waaye buntu këri Cheikhul Khadim yëpp yàlla mu andi ko nag ci kër Serigne Bara Khourédia tuddee bis ba loolu bu ko defee bëggam lu baax la ak jokk mbokkoom ak xent bu muy xent aw rek mbir mii nag nga ne lu baax la mu aju ci Seexul Xadim ñu tuddee ko Serigne Bara Frédia ci la Serigne Cheikh am ci mbégte am ci kontaan gu rëy boo xam ne bëggoon naa ñëwal boppam waaye xat-xat jamono ak yitte jamono yu yaatu mu mu tànn mbooloo bi nga xam ne ñoom lañ àndal te ñuy wax ci seen kàddu nga xam ne bu ñu xoolee jotaay bi sax man ngaa wax ne amuñu fi kàddu waaye ci ndigal la ñuy yëkkatee kàddu yi nga xam ne moom la ñuy dégg looloo tax mu yabal fi Serigne Cheikh Abdou Mbacké ñu Serigne Cheikh Bara Khourédia bi nga xam ne moom lañ àndal mu doon kilifa boo xam ne li tax Serigne bi tànn ko ci mbaaxam ci yiwam ak ci joxale ak ji mag ji ma mag li mu doon euh, Cheikh Cheikh Atta moom mooy ci jiite jataayu jiite délégation bi nga xam ne ñoo liggéey fële ca pénc mi sëñ Bara Frély ñu ngi koy ñaanal yàlla mu dëgëral ab taxawaayam bu baax ñu ngi ànd ak Serigne Bara Sy Sidiya ñu ngi ànd ak Serigne Cheikh Mbacke Kiimaan moom Serigne Khadim mi nga ànd ak Serigne Bara Mbacke moom Serigne Khadim moom Serigne Bara Frély ñu ngi ànd ak Serigne Bachirou Mbacke moom Serigne Cheikh Bara ñu ngi ànd ak Serigne Mamour Mbacke ibnu Serigne Khadim ñu ngi ànd ak tamit Serigne Modou Bousso Mbacke ibnu Serigne Cheikh ngi ànd ak Serigne Mor Roqee Bousso ibnu Soxna Faati Bara Mbacke ñu ngi ànd ak it délégation bi daayira Xidmatul Xadim bi nga xam ne Serigne Mouhamed Dior moo ko jiite nekk fii ci Géejawaay ak daayira Nooru Daara yi bi nekk Touba Pikine ci jiital Serigne Dem ak yeneen i soppe ak yeneen i kóllëre euh, mu doon délégation boo xam ne euh, kenn ku nekk rek moom mii woote bu fi toog mën na fee teewal ñëpp waaye euh, ñoom ñëpp maase bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñëw ngir àndal moom jotaay bi ba nga xam ne des na ko amee ba ci ki njëkk a jébbalu ci moom it loola ko wax ne yow kii def maa wax loo xam ne mënul ma xaw ma ci dara mënul ma mënul ma ci sama bopp dara muy naa ko laaxee li ko sëriñ bi wax mooy taalibe yi mbuus rek lan ci li leen ci war mooy wulli bu ëllëgee lan day demal ko suñu yow man ahmadu maa ko ciy def ak mboolem teraanga yoo xam ne sëriñ Touba defal na ko bi ñuy liggéey jumaay Touba ji nga xam ne amul liggéey bu ko gën a rëy ci liggéeyal Cheikhul Khadim mbooleem euh, luñ fa daan liggéey wala béton bi saa masaana Euh, ndox yu tooyal liggéey baag yëpp ndonga yooyu mbalka naag yooyu yëpp ya caal euh, naka noonu itam biir dëkk amul dara ñu mas di yëkkati lu may na loxoom dugg na ci nit ñi te ñi ci gën a fës lay tuddee na ko mooy wàcc waaye mi ngi mel na rek nga gis maçon boo xam ne moo tabax këram ba mu jekk wala mu tabax kër ba mu jeex nga ñëw ko dëkkal ci kër gi xam ne kon yàlla xalaw nga ñëw di ko kursaloo yeneen naari góor yoo xam ne dàqante nañ bu njëkk ba mu jël ndam la nga ñëw di la tegal loolu rek lay mel ci mbir jokk mbokk bokk nga xam ne moom lay xecc ba tax mu dugal fi yii mbokk xam ne sunu borom moo ko moom digal ñun ñëpp ñu sàmm ko bayyana linnaas maa nuzzila ilayhim suñu borom ne damaa wàcc alquran ci yow yéen saa sallam waaye ngir nga leeral ko leeral googu nag moom moo andi xadis ci xadis yéen saa sallam mu di ñu jàngal ne yéen ñi nga xam ne ay nit ngeen di ñu gëm yàlla na ngeen di fësal ak nuyoo ci seen diggante waaye na ngeen fexe bay joxe aw ñam te na ngeen di jox mbokk na ngeen di julli ci guddi ya te fekk ni ñaa ngi nelaw su ngeen defee loolu. borom Touba. ñépp teew fi ci bësam bii macha allah boo xoolee tribune bi suñu ginnaaw njabootu maam borom Touba ñoo fa toog loolu doy na cant defe naa ni kuy laaj cadeau de fin d'année sëñ Saliou yow jox nga ñu cadeau de fin d'année ndax kado bi cadeau mënu koo raw suñu maam Xaadimu Rasuul njabootam góor ak jigéen mag ak ndaw teew ci bés bii te defewuñu ko fenn lu dul fii ci suñu quartier bii muy mbodd 1 muy mbodd 2 ñu ngi koy sante yàlla sëñ Saliou délégué de quartier Arouna ak délégué quartier Boubacar Cissé ak imam Ahmadou Dia muy imaamu ratibu jumaa ji ak imam yi koy jàppale ci néegu yàlla bi kiñ ci gën a ràññee mooy imam yuusu jaw buñ ko limee rek limaale nañu imaamu jàkk yépp ñu ngi lay gërëm di la sant du wane seen contentement ak seen mbégte ci yow ndax kat sëñ saaliw tey lu mel nii boo ko amee ci gox bi ñu dëkk muy waxuma la ci quartier waaye ci commune Sam Notaire yow yaa ko liggéey du hasard ndax bi nga fi ne cëpp yegg si li nga njëkk a wax mooy laajte kër chef de quartier bi ak kër imam ratib bi bi nga doxee tànk yi da nga dugg ci quartier bi këroo kër nga dugg fa nuyoo wane sa bopp wane dama ñëw bokk ak yéen ndey ak baay te loolu nga def loolu nga wax da nga ko jëfe ñëpp gis ko ndax sëñ Saliou bokk ci njabootu sëñ Touba waaye sëñ Touba sëñ Saliou boo taseeg moom ci mbedd buñ la nee kii njabootu sëñ Xaadimu Rasuul la doo ko gëm ndax oyofaayam ak mën a saafanteeg doomu aadama yi mën a jëflanteeg doomu aadama yi. mën a jël yitteem yépp def ko ci doomu aadama yi sëñ Saliou xàmmewul kii murit la xàmmewul kii tijaan la xàmmewul kii laayen la moom ki mu xàmmee rek mooy jullit lu xew ci gox bi muy bànneex waaye muy safaan ba moo fay jiitu te moo fay mujj te buy ñëw tamit dina indi taraangam fësal ko ci bés bi néegu yàlla bii ngeen jàkkaar loolu muy jumaa ji sëñ Saaliw buñ ko fa gisulee rek xamal ni mi ngi ci ay yitte wala boog dafa nekk fëre ci bërëb bu maamam Xaadimu Rasuul muy tuubaa waaye sëñ Saaliw bu tax fanaanee fii ci Géejawaay yenn fii ci Géejawaay bu déggee allahu akbar muy nodd mooy njëkk ci jumaa ji mooy mujj ci jumaa ji loolu yóbbu na ko ba am mu am cër ci jumaa ji imaam bu gesto ci sàpp yi bu séenee sëñ Saliou du jiite day xëcc mbuuba ne ko demal nga jiite mu jiitu jullit ñi loolu di dem di dem di dem ba bayaanu àjjuma bi ñu fiy def moom sëñ bi moo ñu koy defal bi mu ñëwee ba léegi moom moo ñuy defal bayaan bi kon suñu dëkk ak yow say mbokk bu teewee te nga def ko fi war nañ ko wax ñu dégg ko xam ne ni dëkk nga ak ñun dëkk bu rafet li ci gën a yéeme nag mooy tuut tànk yi jumaa ji tey képp ku fi jullee xàmme ni tuut tànk yi ñoo fi ëpp sax mag ñi te loolu moo ko fi indi turu sëriñ bi ci turu sëriñ Basiiru mais suñu kilifa ñoom ak turu sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy kilifa sëriñ Basiiru ñu ngi sant ñu fi teew ñëpp ñëpp ñëpp turu suñu bàjjen sama sama suñu jaxat bàyyiwuñ kenn kenn gis nañ ñëpp xam ne nañ ñëpp teewal nañ ñëpp xol yi set na xel yi dal na suñu ñoo ko gën a rafet ku fi teew rek ñu ko jëfe indi yal na ko yàlla sàmmala yal na yàlla doon ñëpp ñëpp ñëpp taw fi ak wér ak xewal ak ñaari ànd ak seen saa bi liggéey dafay mel ne lu ci dënn wala bu manqué ci rek man ni ma yokk la waaye sëñ bi li nga xam ne moom la kilifa yónni suñ ko waxoon gën naa natt bi moom it bu ko waxal ko fu dana gën a nag dana gën a jot dana gën a yaatu waaye ñun ñu yónni ñu mel ni manqué ñu ngi lay manqué ndax ñàkk mën a wax ci mbooloo waaye yéene ji rek ñu dem solo ñu ngeen moom sëñ bi jaay ko moom